depuis vendredi Assane ba léegi sénégal yi ñu toog di xaar nii daal remaniement bi dafa yàgg am ñu def commencé def ay euh, listixaar wala sax boog ñi nga xam ne daal mooy ay gëstu ni lu tax mbaadu dañuy foog ni président Macky Sall dafay bañ a def remaniement di am ñu muy félicité mi ngi doon toog ci xool ko mi ngi nii ci escalier euh, pale bi euh, tabarkàlla ak taxawaay bu jekk bi jantal la macha allah Abdou président nii lay mel léegi bi li amee nee na moom ci boppam. presse bi ci boppam dafa am ñu commencé ñaaw njort nee nañ ministre de l'intérieur bii nga xam ne mooy intérieur bi daal mbir ma fa la xaw a tagee ndax dañ koo bëgg am fu ñu ko yóbbu changé ko indi fa keneen moom daal xam naa ma doon déng déng ci li presse bi wax waa bu dee dëgg la waaye daal dafa mel ni ci moom mii la mbiri bañee woon ba tax na ak léegi daal defaguñ dara am na nag ñu ne dañuy bañ frustration maanaam président Sall daal di changé ñu jëm ci élection yi ak jaxasoo am waaw bi de loolu ñu wax du dëgg du dëgg de eh. ñu ma ministre leen l'intérieur bi. Hmm. moo tardeel affaire bi. waaw moom lañ moom lañ bëgg xool fu ñu koy dugal. moom lañ bëgg a xool fu ñu koy dugal te amaguñ ko moo tax affaire bi tardé. waaw loolu du dëgg. waaw ci argumentaire. ministre leen l'intérieur bi jàng na xam na ay loi xam na ni post bi am na ku fi nekkoon xam na ni dañ ko faa jëlee xam na ni dañ ko faa indi. Hmm. moom it xam na am xam ne fi mu jaar ba fi mu egsi. Hmm. kon bu tey jii président Macky Sall bu ko dénkee dara. dem ba yàgg mu ne ko dama lay jëlee fii. yóbbu la feneen xanaa kon moom mooy président. ah ci munuñu ginnaaw euh, amuñu fu ñu ko yóbbu léegi. non mais Abdoulaye Daouda Diallo boo seetloo bi ñu nee leen ci Amadou. xam nga déng-déng amoon na. Ah. président ko waxtaan ak moom mu dem ànd ak moom. Ah. mën naa nekk déng-déng mën naa am. non déng-déng bokkut ak nga dem xam nga tey jii maa ko déng tas naa gouvernement bi kay. lu si amati déng-déng. tas naa gouvernement jëm fal poste xam tas naa la moom. Hmm. Antoine ñi mu wut a bañ parce que dañ ko joxoon dañ ko faloon par décret. mais jëmmi kaay dem fee. waa est-ce que du foofu la ñuy non non dem fee moom amu si ndax kaay dem fee dañ ne Ba yow yaay taxawalaat gouvernement. gouvernement boo xamante ni bu ñëwee dañ ne ah gouvernement Amadou Ba bi de macha allah ñu ngi liggéey gouvernement Amadou Ba bi de jubóo nañu ak askan wi gouvernement Amadou Ba bi de ñu ngi doxal yoon. gouvernement boo xamante ni donte gàtt na trop ñu miin leen fi donte gàtt na trop ñu wane fi seen bopp ba tax nit ñi mën leen a gëm wote woteel leen mais loolu yi lañ bëgg. mais man gëm ma ni mukk Antoine dana tax maam dana danañ ko wax ni ko kaay fii muy bañ wala kaay fee muy bañ mhm. man li ma gëm mooy réew mi képp ku ko mën a defar moom rek na defar. mu am fi post ak mu ñàkk si am poste. léegi da nga teggi li ñuy wax ni journal yi ko wax te tegoo fi dara. loolu waaw ne leen xamal ne ni Antoine du kuy bañ loolu. waxuñu dëgg. alaaji euh, journal yi de bi ñu xëyee ànd nañoo ak Sénégalais ne lu tax lu tax wala boo ginnaaw bi Sénégalais ne lu tax lu tax mu yeex ñoom daal am na yuñ bécc ci askan wi daal nee nañu euh, roof yeeg roppat yeeg yooyu daal moo ko yeexal ak frustration bi ñuy bi ñuy bañ. waaw lu mën a ne la euh, loolu mën na mën na ne xam nga bañ bi bon boo seetee xam nga par exemple euh, bu ñu àndee di def dara. Hmm. nit ñu bari jàpp ni lii ñuy def kat diggante président la ak ministre de l'intérieur. Hmm. lu bari xew ci dëkk bi ñu war a dem ngir laaj jiwaat askan wi nga bëgg a jekki-jekki dindi ministre de l'intérieur bu fekkente ni dindi nañ ko mu nangu ko ñu dindi ko keneen ñëw remplacer ko mbir mi woyof lool dañ naan kon ki fi nekkoon ndekete moo doon def jëf ji waaye gis nga kii bi ñëwee ba nëga yëf yi nooy na yëf yaa ngi dox normalement loolu day mel ni da ko sacrifier mm-hmm. te moom tamit bàyyi ko fa mm-hmm. ne ko yolomal buum gi mbir mi wane ni ci yow la jóge moo ko gënal que mm-hmm. ni muy dem keneen di ko wuutu di yolomal parce que bu keneen kooku yolomalee rek dañ naan gis nga diw dégg naa la ni mu amee fulla ni mu amee fayda gis nga ko bi mu ñëwee lépp changé na lépp lay delluwaat kon ci moom moomu mbir mi dootul yegg ci patron bi nga xam ni peut-être lu bari fa la doon jóge looloo tax bu résister amee loolu mën na tax mu résister bañ a bañ a loolu bañ a bañ a bañ a bañ a bàyyi <laughs> bañ a bàyyi quoi ah, parce que rek day bëgg a wax ne bon yëf yi daal hmm. maag yow la. nañ ko jox justice kon. Ah, sinon waaw sinon bu dee da ngaa bëgg mu nooy. <laughs> xam nga intérieur bi laa koo nooyal ni nga ko bëggee. <laughs> waaw waaye waaye nag boo ma teggee keneen ñëw nooyal ko. bu boobaa man mii ma nañ ma sacrifier xam nga intérieur bi lu tax muy xaw a <laughs> waaw intérieur bu ngeen boo seetloo ñoom par buggaan ak gars yu bëri seen campagne yu mujj yi mooy mm. bëgguñu Antoine organiser élection yi waaw léegi kon kay bu ñu ko fa dindee ñoom alhamdulilah la ñuy wax mm. ah xam nga mën nañu ko fa dindi sax teg fa keneen koo xamante ni kii tey ci côté boobu mën naa gën a waaye Antoine moom ci jëmmi boppam moom da ngay nekk ci place am mm. xam nga tey jii boo nekkee ci place nit koo xamante ni ki yow tey def nga yoo xamante ni bi nit ñi nee nañ lii warutoon a am. moom lu def lu am. dem ba si virage am na yu bëri yoo xamante ne. xam nga mooy yi ñu fi def Ousmane Sonko di nga ko def kii ak affaire yi kii li daw yëpp. Mhm. léegi loolu yëpp tey bu ñu bëggee jekk keneen ñëw rek la waat xam nga tey jii fi mu mbir yi mën naa soppeeku waat soppeeku bu gaaw. Mhm. xam nga. Mhm. mbir yi mën na soppeeku soppeeku boo xamante ni bii doo comprendre lan la parce que man tey rek bi nga tegee sa tiitre bi rek am na lu ma gis loo xam ne am na yeneen lu ma gis mais comme que yeggeegoo ci. Hmm. nañ bàyyi ba yegg si ji. comprendre mais bi nga tegee sa am na loo am na loo xam ni gis naa ko quoi. Hmm. waaw d' yow léegi su ma la doon laaj kon euh, ànd nga ci ñu changé ko. kooku la Antoine. Antoine waaye sa xalaat yow boo doon joxe non xam nga man boobu ñu changé ko ñu bañ koo changé loolu moom wax dëgg fa yàlla parce que xam naa ni. Hmm. man li ma bëggoon. bu ñuy def élection. Hmm. ministre de man pour man awma problème mu nekk fee mu bañ fee ne. Hmm. parce que li des ci mbir yi bëriwul xam nga la moo mais nañu jël koo xamante ni kii sénégalais yi dañ ci ànd fa xam nga après élection dafa garaaw. Hmm. réew yu bëri déstabilisé wu nañ ci problème am na ci parce que après élection. dañoo soxla koo xam ne bu waxee. parce que Sénégal dañu war a jubóog ñuy wax tey ji conseil constitutionnel dafa war a mën a taxaw ëllëg ñu ne diw gañe na ñu wax ñëpp ànd ci d'accord ne diw gañe na. loolu nag da nga koy liggéey. d'accord parce que sinon rek. Hmm. après la vingt cinq. Hmm. luy xew. donc il faut que ñu xam ni fi mu toll nii ñi ngi maanaam ñi ngi yor ak l'asper di ko taaw yi di ko taaw yi ba le vingt cinq la ñuy xam exactement nan la yëf yi di mujjee. mais lan la yëf yi di mujjee fi mu toll nii lii di xew nii yépp man pour man dañu war a liggéey pour lu bis boobu. nekk bis boo xamante ni bisu feet lay doon ci sénégalais yi. d'accord te mën na doon bisu feet ci kaw ñu teg ko ci yoon woo xam ne fa lañ ko teg nga xam ne bu boobaa ña gañe dañuy nangu ni ki ñi ñu gañe dañuy nangu ni gañe nañ leen. Mm-hmm. ki gañe ñëpp dañuy yëg ni diw mi gañe na bu ko defee mu nekk feet pour sénégalais yi. d'accord loolu la ñu war a liggéey